ñoo ngi ñaanal suñu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa na ko yàlla dolli xéwal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ñu ngi ci kitaabu tawxid am benn bunt boo xam ne dañ ko ci dugal comme ci lañ toll ñu bañ romb bunt boobu am lu ci ñàkk leer moo tax ñu profito dugal ci tomb bii ñu bëgg a fàttali tey mooy kayfa nazuurul qubuur naka lañuy ñuy ziyaare jee bàmmeel yi ñu jàpp ne li tax ñu dugal ko ci mooy lu ñu seetlu mooy bàmmeel yi daanaka bi daag bokkaale rek moo fa bari kon dina jaadu ci ñun comme ci tomb bàmmeel yi la nekk ñu profitoo ci jéem a fàttali sunu kemtalaayal kàttan naka la ab jullit di ziyaari jee bàmmeel di ñaanal mbokk yi nga xam ne moo ñu jox tey téere yi mu nekk benn soxna nekk fukki téere yoo xam ne téere bu ci nekk ëmb na ñeenti téere alqawaidu l arbaa al usulu salaasa kasfu subahaat ak kitaabu tawxid bi ñuy jàngale loolu yépp yàlla def na mu ngi ci téere bu ndaw bi ngeen di seen ma yor ko nii majmuatu tawxid maanaa li doomu aadama di soxla ci àddunaam yépp ci tawxid mu ngi ci téere bi kon ñu fexe incha allah ñun ñëpp ñu am ci waaye nag ci question yi de tontu question yi de ku tontuwul doo am suñee ci tomb bu njëkk bu tax ñuy ziyaara ji bàmmeel mooy alxikmatu min ziyaarati alqubuur lan moo nekk ci li tax ñu santuñu nañu dem ziyaara ji bàmmeel yi bu ci njëkk mooy al mooy pour ñu mën a waaru al ziyaara ji bàmmeel yi pour ñu mën a waaru jël ci waar xam ne lii dal sa mbokk mi tey ëllëg yaa ciy tegu fii nga gis ñi tëdd tey fii nga gis ñu denc sa mbokk yi yàgg yàgg yàgg yàgg yow fii nga jëm nga war a waaru ci loolu bu dee da ngay jaay alal ku la ëppale mu ngi fii bu dee da ngay jaay taar ku la ëppalee ngi fii bu dee da ngay jaay xam-xam ku fii bu dee da jaay ragal yàlla ku la ëppalee ngi fii bu dee da jaay doole ku la ëppalee ngi fii bu dee bandi ngay jaay ku la ëppalee ngi fi na lépp looy jaay rek boo demee ci armée li kon ak waar la fa nit di jële ñaareel mooy wa tazkirul axira fàttaliku al'axira boo demee ci bàmmeel yi rek dugg ci armeel yi waaye léegi sax wax dëgg yàlla boo demee tey ci armeel yi sax saxeel xel dootul dem ci al'axira ndax armeel yi dañ koo taaral tabax ko ay karo fleur démb laa jóge yoof demoon nga waaye sa yaram day daw sa yaram day daw léegi boo demee armeel yi yoof daanaka sa xol sax dootul tooy dootoo ragalati dee sax sa xel dootul nekk ci dee ndax ni ñu taarale armeel yi te armeel yi dafa waroon fàttali nit ñi armeel yi dafa waroon encore fàttali nit ñi azuhdu fi dunia ne ku dem ci armeel yi da war a dëdd àdduna mais tey boo demee ci armeel yi dangay da ngay gis ni ni kër yi rafete noonu la armeel yi rafete armeel yoo xam ne dañ ko rafet karo yi karo yuy tàkk ay fleur ay photo cuuraay and dañ ko raxas ba armeel yi melax te daf la waroon ginnaaw waaru ginnaaw fàttali alaaxira mooy azuhdu fi dunia dafa la waroon jural nga dëddu àdduna boo jógee ci armeel yi sa xel ndootu nekk ci àdduna àdduna bi nga xam ne ñun ñëpp danañ toxu fi bàyyi kon mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne inni kuntu nahaytukum an ziyarati alqubur fa zuruha li tuzakkirakum bil rawahu muslim yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam na man dey dama leena tere woon ziyaare ji armeel yi tere woon leen ko inni kuntu man yonent nekk koo xam ne nahaytukum maa leen tere woon an ziyaaratil qubuur ci ziyaara ji bàmmeel yi dem visite maa leen ko tere woon mais fii ma toll tey maa leen digal fa zuuruha dem leen ngeen ziyaare ji armeel yi dem leen ngeen visite ji armeel yi dafa mel ne illa gi mooy lan mu ne li tuzakkirakum bil axirati ngir mu fàttali leen àllaaxira léegi yow boo demee ci armeel ba ñëwaat sa xel demul ci àllaaxira ndax amati na njëriñ soo demee sax ñu ngi suul waa ji nit ñaa ngi waxtaan waaw ku nekk a ngi ci ci li la neex armeel yi daanaka doo fa gis loo xam ne daf lay fàttali àllaaxira doo ko fa dégg ay bidaa lañ fay wax ak ay sirk kenn du fa fàttali doomu aadama yi lu leen di dëdduloo àdduna lu lay di tax ñu waaru lu leen di fàttali àllaaxira est-ce que sax illa boobu léegi dañu ya sunnu sunnaal nañ yoonal nañ ci kii dem muy ziyaare ji bàmmeel yi yoonal nañ ci moom sant nañ ko diggal nañ ko assalaamu alal amwaat mu nuyu néew yi mu nuyu ñi faatu wadduwaa ilahum mu ñaanal leen inda duxuuli jamono bu mu duggee ci biir armeel yi saa yoo duggee ci ay armeel yow mi ziyaare ji bàmmeel yi liñ la njëkk a sant mooy nuyul néew yi soo leen nuyoo ba pare nga ñaanal leen faqad allama rasulullahi sallallahu alayhi wa yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam jàngal na sahaaba ya ma doon àndal an yaqulu assalaamu aleykum no waruma ko wax naa noppi gaa yi wax ko ndax ñu am ci téere yi mokkal ngeen ñaanu dugg armeel kan moo mokkal ñaanu dugg armeel bismillah assalaamu aleykum insha allah kuma illa an dubu dudna wani tawabu nasalullah nasalullah lahu lana wa lakum alhamid waaw kii am na benn téere moom kon yoonal nañ ci ki dem ci armeel yi mu nuyu néew yi mu ñaanal leen comme ni ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale woon saxaaba yi mooy lan an yaqulu nañu wax assalaamu alaykum ahlu diyaari min almuminin wa inna insha allah bikum laahiqun asalu llaha lana wa lakum al am na yeneen riwaaya boo ci wax baax na yépp yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoo ko jàngale yu wér yi na jàmm nekk ci yéen yéen këru way gëm yàlla yi yéen ñi gëm yàlla te tëdd fii yàlla na yàlla def ci yéen jàmm ñun dey bu neexee yàlla léegi ñu fekk si leen wallahi léegi du yàgg de wa inna insha allah bikum laahiqun ñun de léegi ñu toxoo ci sunu kër yi fekk si leen fii ngeen tëdd léegi asalullaha lana walakum alaafiya ñoo ngi ñaan yàlla di ko ñaanal sunu bopp ñu ngi ñaan yàlla jàmm di ko ñaanal sunu bopp di leen yaanal yéen fii ngeen tëdd yàlla may leen jàmm alaafiya ay min al azabi leen yàlla fiixal ci mbugal kon lii mooy lu njëkk lu ñu sant kii dem ci armeel yi mooy lan lañ la sant mooy nga nuyoo ñaan nuyoog ñaan lañ la njëkk a sant bu ci tegu mooy adamul juluusi alal qabr bul toog ci bàmmeel bi boo demee ci ay armeel bul toog ci bàmmeel yi dañ ko tere adamul juluusi alal qabr toog ci bàmmeel dañ ko tere <laughs> wa adamul watihi ak di ci dox di ci dëgg bul toog ci bàmmeel bul joggi ci bàmmeel yont yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na laa tusallu alal qubuur bu leen julli ci bàmmeel yi wala tajlisu alayha bu leen ci toog rawahu muslim mbokk yi kenn du ci toog ay bàmmeel mbokk yi kenn du ci julli ay bàmmeel mbokk yi kenn du ci joggi kenn du ci julli kenn du ci toog kenn du ci kenn du ci joggi loolu dañ la ko tere bàyyi ko xel yow jullit bi nga xam ne yow yaa dem ci bàmmeel yi bëgg ziyaare ji yonent bi ali bëgg ziyaare ji armeel yi bëgg nuyu ji jullit yi fa tëdd bëgg leen ñaanal xamal ne tere nañ la nga toog ci bàmmeel yi tere nañ la nga dëgg ci tere nañ la nga julli ci beneen mooy adamu tawaafi xawlal xawlal qabr adamu tawaaf xawlal qabri tere nañ kii ziyaara ji armeel muy wër armeel yi comme ni ñuy wëree kaaba gi ab tawaaf bàmmeel bi ngay ziyaara ji bul ko wër mukk nekk di ko wër di ko tawaaf xawlal qabri ci li wër bàmmeel bi bi niyati taqarrubi lool nag nga koy def di yéene ne man kat dama bëgg a jege yàlla xaaral ma wër bàmmeel bi su ma wëree bàmmeel bi yàlla dina ma may tiyaaba dina jege yàlla lool dañ la ko tere du tax benn barab rekk la yàlla joxe ndigal ne nañ ko wër benn barab la yàlla joxe ndigal ne barab boobu nañ ko tawaaf est-ce xam nga barab boobu mooy kaaba gi boobu jar na jar na kado de am ah? jar na ko de am ah? benn rek am na aaya alxuraan buy wax ne dañoo war a tawaaf kaaba gi aaya boobu di ko wax ma jox la kaa ma jox la téere benn benn barab rek bi yàlla digale nañ ko tawaaf ku ko indi aaya bi ma jox la benn non yow bokkoo ba bokkoon da nga ñëw toog fii mhm. laa ilaha illallah laa benn aaya bu yàlla digal ne dañoo war a tawaaf benn aaya bu yàlla digal ne dañoo war a tawaaf benn barab ma tegaat sama téere kon ma wax ko suratul xaj borom bi tabaraka wa taala nee na wal yatatawafu bil baytil atiq nanu wër ci néeg bu sell bi muy kaaba gi kon kaaba gi dong lañu may jullit mu lan wër ko feneen nag foo dem di wër da ngay ndax santuñu la ko benn barab la la yàlla tabaraka wa sant nga tawaaf mooy kaaba gi wa mu ne lii yàlla santaane ne kaaba gi dong lañu war a tawaaf waruñoo tawaaf ci ay bàmmeel waruñoo tawaaf leneen beneen jàkka beneen néeg isharatun ila anna alqubur laysat mahalan lil quran loolu joxoñ la boo ci déggee ne armeel yi alxuraan amu fa place sunu armeel yi alxuraan amu fa place donte ne tey Sénégal moom suñ ne cëpp rek gaa yi na bismillah commencé joxe ay dog jàng leen faatiha jàng leen xulwa allahu jàng leen yaasin jàng leen inna fataxna jàng leen suratul mulk ku nekk di wax ku nekk di joxe alxuraan amul place ci ay armeel mu ne bi aksil bayt gis nga diggante kër sunu kër yi ak bàmmeel yi benn différence rek mooy différence bi loolu loolu tamit li jar na téere différence bi nekk suñu diggante kër yi ak armeel yi bismillah waxal olof ndéggu maraam. non man d'accord ma keneen différence suñu kër yi ak armeel yi doo wax téere ngi nii. keneen. ma teg sama téere ma teg ah ma teg nga ñëwaat bismillah waaw léegi dama bëgg nga indi dalil bu leer bi rek moom moo xëy rek ma jox la laysa bi salaat faqat innama baqiya shay qiraatul quran الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر wax naa xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu leen def kër yi comme bàmmeel ndax kër gu ñu jàng suratul baqara seytaane daf koy daw kon ça veut dire que kër yi dañ cee war a jàng alquran bàmmeel kenn war fa jàng alquran gis nga loolu rek laa bëggoon diggante ah waaye waaye téere yi nag du defee noonu nag ah sama téere yi lool la téere yi yow nga wax yonent bi da la laa tajaalu buyutakum maqaabir bu leen def kër yi ay bàmmeel ndax fa inna seytaan yafiru min baytin lazi yuqra fi suratul baqara kër gu ñu xëy di fa jàng suratu baqara seytaane dafay daw kon bu leen def kër yi comme bàmmeel looy dégg ci en hadis bi yonent bi def kër yi comme ay bàmmeel kon alxuraan kenn ci ay bàmmeel bi mooy alxuraan bi ci kan la doon wàcc bi ci kan la doon wàcc la ilaha illallah bon jox la ko très bien wàcc yonent bi ak nit ñi kan moo gën a xam alxuraan li ci barkeel la lu ñu war a def feek lu ñu war a wax feek yonent bi xam na ko wala xam ko su fekkoon ne jàng xulwa allahu jàng yaasin jàng jàng jàng jàng dagan na yonent bi dina ko def wala ko def waaye mosu ko def mosul joxe ndigal ne jàngal leen diw abubakar diw mii de faatu na jàngal leen ko nangam allahu akbar yonent bi saa sallam bu ñëwoon ci ay armeel ba ñuy dugal waa lu muy wax istaghfiru li axiikum haza fa innahu l aana yusal jéggalul leen seen mbokk mi instant yi jéggalul leen ko ndax moom mii de ñu ngi koy laaj saxaaba yi ne ko lu ñuy wax gaa yi xam loolu loolu jar na téere de déedéet ci biir bàmmeel bi lan lañ ko war a ñaanal. waaw loolu lay wax waaw loolu lay wax loolu lay wax kii ah téere gaa yi benn ci des gaa leen loolu mooy ci arab allahumma sabbit mantiqahu indal masala yow yàlla yàlla nga dëgëral làmmiñam duñ koy laaj. yow yàlla yàlla na nga dëgëral làmmiñam suñ koy laaj saxaaba yi loolu ne yonente bi saa yonente bi saa salaam ne saxaaba yi loolu ngeen di wax seen waa ji ñu ngi koy laaj wax leen yàlla yàlla na nga dëgëral làmmiñam ñu koy laaj fas alu lahu ak tasbit ñaan leen yàlla mu dëgëral làmmiñ bi ndax ñu ngi koy laaj léegi gars yi duñu wax loolu mel ne ñoom ñoo gën a xam yonente bi lu baax li mel ne ñoom ñoo xamoon alxuraan bi mel ne ñoom ñoo gën a xam yonente bi secret bi nekk ci alxuraan boo waxee ñu naan secret bu fekkee yonente yonent bi kay moo leen gën a xam ndax mbir yi ci moom la doon wàcc moom la yàlla yónni ku yàlla yónni mu ne nii la yow nga ñëw ne du noonu di jéem a am am lu yërmande indi say dog indi say indi sëy ah, dëj bi ma demoon démb. yaa ngi foon. waaw bu leen def kër yi bàmmeel. comme ay bàmmeel. kër yi lañ war a jàng alxuraan mais bàmmeel yi kenn waru ko cee jàng ndax yonent bi moo ko wax. la tajaalu la wax. dama naa wax. danañ yàlla jégal yàlla jégal mu ne kon bil axe contraire la war a nekk bil axe mu ne fal xadiis ay xadiis yi nga xam ne alwaarida ñoo rot fi qiraati alquran ala alqubur gayru saxiixa xadis yi ngeen di jàng ñu naan leen yonent bi saa moo ne jàng saaru sàngam aaya sàngam ci ay bàmmeel benn wiru ci boroom xam-xam yi jàngale xadis ñoo ñu wax loolu benn wiru ci gayru saxiixa loolu leer na amma talabul madad wal awnu min al mayit walaw kaana nabiyan aw waliyan fa huwa min shirkil akbar nee na bu fekkente ne nag waa ji dem ba bàmmeel yi muy sàkku yokkute yokkute yow yàlla bàmmeel bi ma tiim de dama bëgg a yokk ci wala dama bëgg ndimbal ci ku dee ngay sàkk ci moom nga yokk walla nga sàkk ci moom ndimbal nee na même bu doon waa ji yonent la même bu doon waliyu la loolu bokkaale nga yow bokkaale nga fa huwa shirkun kon ay ay bàmmeel nit ku dee kenn du dem ci moom ah di di ko ñaan walla ngay sàkku ci moom yokkute te yéen yéen ngi nii toog ma ni ci réew mii nu nekk li ëpp ci nii dem ci bàmmeel yi lu ñu fay wuti yokkute barkeelu ak ndimbal dangay ngay ku ne bi ma demee ci bàmmeel bi damaa wér bi ma fa ñaanee am naa liggéey bi ma fa ñaanee am naa jëkkër bi ma fa bi ma fa bi ma fa bi ma fa wallahi sànq bi may liir tomb bi damaa yegsi ci tomb boo xam ne dama tëj téere bi arrêté li ma doon def ndeke am na ci musiba yu nit ñi di def ci armeel yi ci bàmmeel yi ci nit ñu baax ñi jigéen ju tëx am doom nit ne ko demal ci xabru sàngam booy dem bul jiital dara waddul sër kese kese kese nga def yaramu neen soo demee nga fexe ba sa awra tiim bàmmeel bi di nga am doom di ëmb ndeke nit ñi toll nañ foofu nga gis jigéen ñi di ko def def si sëru kese dem ba jàkkaarloo bàmmeel bi ubbi sa awra da ko sax ci bàmmeel bi pour nga ëmb am doom jigéen ju musul am doom ndeke noonu la ko gaa yi di di di di waxee pour mu am doom wala musiba bii fan la jullit di toll tey ci ci musiba yi ñu nekkee ñun te lu. amoon na lu jeex. xoolal loolu nu yow nga def yaramu neen dem di won say awra bàmmeel allah est kooku li ñu waxoon ci ci njëlbeen bi moom moom moom lay def pour fa pour waaru pour dëddu àdduna pour fàttaliku àllaaxira parce que sëy nga ak sa borom kër ay weer ay at amoo doom rek nga dem ci benn buxaaba mu ne la da ngay dem ci armeelu sàngam nga fexe rek ba sa awra bi tiim bàmmeel bi di nga ëmb nga gis nit ku dem def lool te ci réew mi ñu ngi koy def xoola xoola mbon gi tax du nu am jàmm foo dem doo gis jàmm foo dem doo gis diine yooyu yëpp ay bokkaale la yoo xam ne su fekkee leeraluñ ko jullit yi jullit yi ku ci dee da dem safara parce que kuy bokkaale ba dee safara nga jëm kenn du dem ci ay armeel di ci yaakaar ndimbal di ci yaakaar ñaan di ci yaakaar yokkute waa ji tëdd fii su munoon dara du fi tëdd ma ne kenn du bàyyi sa kër tëdd ca armeel ya tëdd ci àll boobu kenn du ko def bàyyi sa jabar bàyyi sa jëkkër bàyyi say doom bàyyi sa oto bàyyi sa lal tëdd ci biir suuf ñu suul la ku munoon dara di nga ko nangu wax nañu wax dëgg bi dañoo mënul moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ñi ci alquran ne wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka fa in fa'alta fa innaka idan min az-zalimin borom bi nee na bul woo wala tad'u bul woo bul ñaan min dunillahi keneen ku dul yàlla bul woo keneen ku dul yàlla bul ñaan keneen ku dul yàlla maa laa yanfauka ku la dul jëriñ du la wala yadurruka du lor ki ngay woo du la jëriñ lor fa in faalta saa yoo ko defee boo woowee ku dul yàlla boo ñaanee ku dul yàlla fa in faalta gis nga saa yoo ko defee fa innaka yow mii def loolu isan ci jamono bi nga ko defee mina zaalimina bokk nga ci tooñkat yi wala bu fekkee aaya bi du lañ koy firee ngeen firi yàlla moo ko wax yàlla moo ñu tere ñuy woo keneen ku dul yàlla ñuy ñaan keneen ku dul yàlla mu ne koo xam ne ki ñuy ñaan laa ya durruk du la lor wala yan faw ko du la jëriñ kii dee ñu yenoo ko ci këram indi ko ba ci fiñ koy suul gas bu mu xóot li ñuy gas est-ce que yëngatu na yëngu na wax na bu leen ma suul wax na suuli leen ma côté bii wax na wax na ñu gas bu mu xóot wàcc ko ci biir delloo si suuf si ci kawam mu ne lacc tëdd foofu nit ñi jal ko dem ñibbi kii kay mënul lor keneen yow mii dugal ko fii kii mënul lor yow yaa ko fi dugal su la mu doon jàpp kay ne la bu ma fi bàyyi mu jàpp la waaye yaa ko fi dugal yaa wàcc suuf si ci kawam yaa ko maasale yaa samp tableau bi yaa yaa yaa yaa laa yan fa u ko mënu la jëriñ wala ya duru ko mënu la lor kon bul ko ñaan ñaanal yàlla subhanahu wa taala yàlla mii borom dund gi yàlla mii moom ko moom la xoolal bu nit ki dëgëree bopp mu ne ko wa in faalta soo dëgëree bopp ba def loolu nga bañ a ñaan yàlla nga bañ a woo yàlla fa innaka yow izan ci jamono yooyu nga defee lii min zalimin bokk nga ci tooñkat yi bokk na ci mbokk yi ba tey adamu wadi akaalilu zuhur wa xamliha alal qabr bokk na ci li ñuy def te ñu tere ko kuy ziyaara ji bàmmeel mooy bañ faa yóbbaale ay fleur ay pot de fleur loolu yëfu nasaraan la pot de fleurs ci ay armeelu jullit ay bouquet de fleurs loolu yëfu nasaraan la du yëfu jullit li annahu tashabbuhun bi nasara loolu nuru nuru lu nasaraan la benn wa idaatul maali ak yàq alal ñaar ñoo ci nekk yow mi jënd bouquet de fleurs pot de fleurs yaa xam ban xeetu fleur la nga dugal ko ci armeel yi jullit yi samp ko ci sa bopp néew bii ñaari mbir nga def def nga bàmmeel bi bàmmeelu nasaraan yàq nga alal yàq nga alal fii ma la faidatun minhu amul benn faida ci li nga def lu tax xoolal mu ne walla ata al mablag lil fuqara sadaqatan lil mayit lastafaada al mayit wal fuqara allahu akbar soo jëloon laa hawla wala quwwata pot de fleur bi ñaata la ko waa ji jënde jëlal rek jëlal sax 10 000 jëlal sax 10 000 nañ yem ci 10 000 jënd nga benn pot de fleur 10 000 francs 10 francs boobu boo ko jëloon nga saraxe ko nga saraxeel ko ku déeki ku déeki dina ci jot kontaan faqiir bi nga ko jox kontaan yàlla kontaan ñett ñooy kontaan soo jëlee dix mille bi nga saraxe ko yàlla mi tax nga saraxe ko dana kontaan néew bi dina kontaan ndax dina am tiyaaba ki nga ko jox dana kontaan dina ñaan léegi xoola nga ñëw jënd fleur fleur bi day ñaan bi nga koy yóbbu diisaay rey la coono rey la nga teg ko ci bàmmeel bi bàmmeel bi nekk bàmmeelu nasaraan yàlla jéppi borom bàmmeel bi ki fa tëdd mere la moom mu ci biir naan la lii ngi fi indi santuma la ko parce que lii def may lor parce que sant ñu ko jullit jë beneen bi gën a dangereux tey yow démb demoon nga yoof tabax yi nga gis foofu tabax yooyu yëpp buñ dajale woon xaalis bi jox ko faqiir yi ndax faqiir yi dinañ jëriñu wala duñ jëriñu xoola karo yi waxuma bi waxuma la suuf si waxuma la béton bi waxuma la mool yi ah waxuma la yi waxuma la fleur yi yooyu yëpp buñ ko dajale woon mu nekk xaalis ñu jox ko miskiin yi danañ jëriñu wala duñ jëriñu ay milliards ñoo fa nekk yoof ay milliards ñoo fa nekk ci ay jullit ñu jël ko di ko defar ku dee ku dee ku dee ndeysaan yonent bi alayhi salaatu wasalaam nit faatu woon na ñu bëgg a jël yére bu bees sànge ko ko mu ne al alxayu awlaa biha kii dund moo jaadu sol lu bees moo ci yey karo karo kii dund ci yey karo maar ki dee moo yay ci karo bi ki dund moo yay ci karo bi mais ku dee nga ñëw tabax bàmmeel bi ba mu rafet démb gis naa ci armeel yi loolu ñu def asmaullahil husna foto photo yooyu chinois yi di jaay te mu am turu yàlla yi ma gis ñu wékk ko ci ay armeel lim naa fa cinq armeel yu ñu ko wékk ay photo yu ñu def photo boroom ki dee ñu indi photoom teg defar foofu ba mu rafet nga xam ne kii ziyaar sax day leel sijaadaam toog fu lis jàkkaarloo armeel bi loolu bokkul ci diine loolu du armeelu jullit ma ni alal yi jullit yi def tey ci armeel yi alal yi jullit yi def ci armeel yi pot de fleurs yi karo yi tabax yi yooyu yëpp miskiinu jullit ñi ñoo ci gën a yay yonent bi alayhi salaam dafa tara dafa tere ku tabax bàmmeel lu tax ñaari mbir alqabru rawdatun min riyadil janna aw xufratin min xufari naim bàmmeel ñaar kese la jardin ci jardin aljanna yi wala xur ci xuru safara yi waa ji nekk aljanna nga tabax bàmmeel bi aljanna ak bàmmeel bi wul gën a rafet ci moom waa ji nekk safara nga tabax bàmmeel bi ku nekk safara boo tabaxee bàmmeel ba mu rafet ci biti jëriñ na ko moo tax yonente bi ne rubba qabrin yukaf wa saahibul qabri fi naar bëri na bàmmeel bu ñuy wër di ko ziyaare di ko raxas di ci sotti parfum borom bàmmeel bi mu ngi safara kon waa ji lan la koy jëriñ loolu ñu koy defal ci kaw lan la ko jëriñ lu dul yàlla da koy jéppi loolu mu loolu la jullit yi war a xam du taar bi ci kaw kii ngeen suul fii ndax doon na jaamu yàlla loolu mooy wax bi wallahi ku jaamul yàlla bu ñu tabaxee sa bàmmeel ba mel ne pale amul njëriñ kon ñu ngi dénk ñi nga xam ne ñoom la seen mbokk yi di faatu xaalis boobu ñuy jël di ko jënd ay fleur xaalis boobu ñuy jël di jënd suuf géej di jënd béton di jënd ciment di jënd brique di jënd tableau di peinture di di karo ay karo marbre karo yoo xam ne dañ koy commande ba Italie walaw aata al mablag lil fuqara sadaqatan lil mayit lastafaada al mayit wal fuqara alal jooju bu ñu ko jëloon som boobu bu ñu ko jëloon sarax ko ñu saraxal ko ki dee ki dee jëriñu faqiir bi ko jox jëriñu ki dee dina jëriñu faqiir bi ñu ko jox jëriñu beneen bi ci toog mooy ci kii ziyaara ji bàmmeel laa yajuuzul binaa alal qabr daganul ñu tabax bàmmeel bi awil kitaabati cheyin min alqurani awi chicri alayhi li nahyi daganul ñu bind alquran ci kaw bàmmeel bi daganul ñu bind ay way ci bàmmeel bi da ngay gis ci benn bàmmeel comme bàmmeel yi ma gis seen démb ma gis ñu bind la hawla wala quwwata illa billah di tagg waa ji lom la xaw ma ordre d'honneur yooyu mooy lan d'honneur ay ay faxaama son excellence son éminence ci ay bàmmeel kii nekkatul loolu kii kay nekkatul excellence nekkatul kii kay xam nga léegi lan la ndeysaan miskin ko amatul dara moo tax olof yi di ko tuddee néew néew néew mooy dafa néew la ci lépp amatul dara amatul tuur de colonel doo dégg ñu ne colonel mu ci jàkka ji ñuy sang ku ñëw looy wax ana colonel ana imam bi ana waliyu bi ana sëriñ bi ana yonent bi da naan ana néew bi ñu ne la ñu ngi koy sang gis nga amatul tur ana néew bi lañuy ñuy wax wala wala yéen ñëpp mosu leen dem fekk fu ñuy sange bi ngeen ñëwee lan ngeen wax dangeen wax turwaa ji naa ana néew bi ñu ne la ñu ngi koy préparé suñ ko préparé pare génne ko imam bi di wax pare nañ du wax ñëw leen pare nañ ci diw lu muy wax ñëw leen génne nañ néew bi ñu koy yóbbu lan lañ wax ñi ngi yóbbu néew bi gis nga allahu akbar jeex na amatul tur kon nag dëgg-dëgg war na noo waaru war na noo xam ne yàlla li mu santaane lool rek mooy am mooy dëgg te danañ dee kon ay bàmmeel kenn du ci bind da dem ci bàmmeel yi gis ñu bind muhammad gis naa di may bàmmeel yi bind inna lillahi wa inna ilayhi rajiun allahuma igfir lahu warhamhu <laughs> kenn du ko ci bind dañ ko tere kenn du ko ci bind mu ne kenn du ci bind alquran kenn du ci bind ay woy dangay gis nit de ay nit di sara xolle di ko woyal bu dee sax ci nguur gi la moom dañ koy tiiral ay kënu ay kënu tëw tëw tëw gaa yi doo koo doo koo yóbbu wala bu dee militaire ñu tiiral ko ay kënu allahu akbar léegi dañuy geer ak yàlla yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne dañoo tere kii ziyaara ji bàmmeel mu koy def mbokk jullit yi mbokk yi ñëw na ci xadiis yonent bi alayhi salaatu wassalaam di tere naxa ar rasul sallallahu alayhi wa alihi yonent bi tere na ku taaral bàmmeel aw yubna alayhi ñu tabax ci lii xanaa waa yoof gis nu xanaa waa Sénégal dégguñu li hadis bi mu ne wa yaktafi dina doy wa fii dina doy bi wad'il xajari ci def benn xeer bi irtifaa'i sibrin li yu'rafa al qabr soo amee mbokk mu faatu dina doy rek bu ñu ko suulee ba pare nga ut benn birig def ko ci bopp bi ñu suul birig bi ba ci digg bi nga bàyyi ko noonu pour nga xam ne sa mbokk bi fii lañ ko suul yonent bi alayhi salaatu salaam noonu la defoon benn saxaabaam bu tudd Usmaan ibnu Maz'un bi mu faatoo ñu suul ko ba pare yonent bi dana benn waaye jottali ma xeer bële waa ji àttanu ko yonent bi moo ñëw jël ko ñu wax yonent bi dugal xeer bi ba mu des lu tol nii sibre yonent bi daal di bàyyi ñu ne ko lii nag mu ne ataallamu ala qabri axi ngir ma mën a xàmmee sama bàmmeelu mbokk mi waaw ah, jeex na waaye tey <laughs> nañ xool ñun suñu armeel yi nuñ koy def daanaka sax léegi tabax bi dafa xatal armeel yi man gis naa démb ay ay néeg yoo xam ne ne jàkka jëlal la foofu ci biir ci biir armeel yi ngandu tabax dem ñu karole ko yoo xam ne gis naa fa tabax yoo xam ne moo gën a rafet suñu kër yi gis naa fa karo yoo xam ne moo gën a rafet karo yi ci biir saal yi ci biir jàkka yi ba pare lu gën a doy waar mooy dañoo tere ku tabax jàkk ci ay armeel ndax euh, ay armeel kenn du fa julli kenn du fa jàng alquran tey daanaka loolu la ñuy su nit deewee rek ñu ne jàng leen nangam da gis sax yenn saa yi ki koy wax def koy wax rek ngir gaaruwaale daf koy wax ngir jéem a saxal ay bidaa yu ay nit di def mais jéemu ko wax ngir xam-xam jéeme ko wax ngir yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu la daan def te loolu amul benn njëriñ wallahi bu fekkee dañuy ut barke li yonent bi defoon moo ëpp ñépp liñ def barke du dañoo bëgg waa ji yàlla yërëm ko te ñoo def li yonent bi defoon ndax ci nit ñi am na ku yàlla yónni woon ci waa ji ku dul yonent bi ndax ci nit ñi am na ku indi lu ëpp yërmande lu yonant bi indiwul kon kay yonent bi li mu indiwoon foofu la barke bi tàmbale kon kay yonent bi la mu waxoon loolu ëpp barke lu keneen di wax kon yonant bi lu mu defoon looloo ëpp barke lu keneen di def mbokk yi nañu yonent bi doy xoolal senegal tey di ngay gis ñu ne yonent bi lii la wax waaye nag waaye nag ñun lii lañ fi fekk la ilaha illa allah inna lillahi buñ fi fekkee loo xam ne du dëgg dañ koy def yonent bi lii la wax demal nga gëstu xoolal téere yépp ndax lii ñu la wax dëgg la wala du dëgg loolu mooy mbir mi est-ce que dëgg la yonent bi lii la wax su fekkee loolu la gëstu nga téere yi ñu ne yonent bi lii la wax lii la doon def lan moo la war mais nga daan waaye nag waaye nag sunu mag ñi kon nuñ leen di def ah, kon léegi mag ñi liñ def moo gën a baax li yonent bi def allahu akbar bu ñu yonent bi doyatul lan moo nuy doy te alquran moo ñu wax ne yaa ayuha alladina amanu laa tuqaddimu ku yeggali aaya bi bayna yaday illaahi wa rasulihi wattaqu llah inna allaha samiun alim bu leen jiitu yàlla ak yonent bi xoolal yàlla dana eh yéen ñi gëm yàlla bu leen jiitu yàlla ak yonent bi nekk leen ci ginnaaw yàlla ak yonent est-ce que mës ngeen gis saret bu jiitu fas mës ngeen gis saret bu jiitu fas saret bi di daw fas bi nekk ci ginnaaw saret ak fas lu jiitu léegi nag saret yi ñoo jiitu di xëcc fas bi mooy sunu réew mi yàlla mu ne laa tuqaddimu bu leen jiitu. loolu la wax bu leen jiitu laa tuqaddimu bayna yaday llah bu leen jiitu yàlla bu leen jiitu yeneen bi léegi lan mooy sunu mbir kon doomu ndey yi mbokk jullit yi nañu xam ne ay bàmmeel kenn du ko taaral kenn du ko tabax dana doy rek ñu def ci benn xàmmekaay bu ndaw bu ñu xàmmee ne waa ji fii la tëdd comme ni yonent bi defoon ci bàmmeelu usmaan Usmaan ibnu Mazun bokk na ci fukkeel bi ñuy jeexalee ci kiy ziyaara ji bàmmeel liñ ko sant mooy mu bañ a dox ci biir néew yi ak ay dàllam su fekkente ne armeel yi amul luy loraati amul luy jame lu mel ne ay dëgg aki xaaxaam aki yax aki aki ak kon li gën mooy bul dox ci armeel yi ak sa say dàll yonent bi alayhi salaatu wasalaam seen na benn waay bu sol dàllam ci biir armeel yi yonent bi ne ko eh yow borom dàll yooyu waa ji xool xam ne yonent bi moom lay waxal waa ji simmi ay dàllam daal di sànni kon ay armeel ku fa dem su fekkente ne armeel yi amul lu fa luy gaañee bàyyil xel ne waroo dox ak say dàll ci biir armeel yi mbokk yi lii lenn la ci ruq boo xam ne bugguñu ko woon tëb ci kitaabu tawxid pour fàttali ko mbokk yi insha allah ci kàttanu yàlla ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def ci ñun digg ak topp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa